ba taxawal activité yu bëree bëri. waaw noo baaxul xam nga première baaxul deuxième baaxul kay troisième mënul baax kon na ñëpp jóg rek teel la fagaru xam nga ñu jëlee ko fi na ku nekk jël affaire bi ne yow yaa moom yaa war a xeex xeex bi ñu daan daan yow. gaa yi li ñu wax ñu ne il faut mbëri mu bëri wu ñu mën a tijjiwaat làmb ji mu mën a démarrer war waa loolu boo ko gisee maam dañoo bëgg ñëpp am wér rek ñëpp ne si jàmm te lu jàmm daal jàmm moo ko gën waaw waaw mais loolu sant yàlla xam nga làmb daa bokk Sénégal te cër bi dañ ko ko war a yaatalal jox ko ko ndax li muy def Sénégal gisuma benn sport di ko fi def tey jii nii lii làmb organisé pour ñëpp ñëw ñàkku gisuma ko ko def comme buy indi Sénégal si làmb ci dëkk bi làmb danga koy def si sport kon nañ jox làmb cër ndax lépp lu ñu woote ñu ngi ci lépp lu bëgg ñu ngi ci bu dee liggéey ñu ngi ci bu dee gëm suñu bopp ñu ngi ci kon lu mu gën a gaaw pour ñu ubbi ko ñëpp jariñu waaw non sonn nañ mais mbër yi ñoo gën a sonn lu ñoroon def nañ ko ci ay sëriñ def seen doole amatuñ promoteur yi am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey xam nga kon ñoo tane mbër yi mais li am li ëpp sens mooy nan jàppale làmb jox làmb cër waaw. fu mu ne nii après vaccination yi est-ce que am nañu yaakaar ngeen bi wala CNG delluwaat waxtaan comme nee nañ buñ buñ buñ vacciné ñu ñu ubbi ko. vacciné def nañ vaccination bu pare nañ nañu ubbi làmb ji loolu rek moo ci des di ñaax ñëpp ñu ñëw ñu ubbi ñu ñu ñëw vacciné wu. non non dinañ ñëw am na ñoo xam ne dañuy ñëw ak euh, xam nga ci ci temps boo xam ne kenn du leen gis comprendre nga mais ñun ñi nga xam ne dañuy joxe exemple dañuy ñëw wane ko mais incha allah ñëpp bëgg làmb ji ubbi dinañ ñoom ñëpp dina ñëw incha allah jaajëf. muy noonu ah, ba léegi ñu ngi arène nationale pour campagne vaccination bi contre coronavirus reste ak beneen champion di Eumeu Sène junior ginnaaw ba ñu la nuyoo naka nga gisee figure bi. yaa ngi maa lay siyaar di la jox sa di sant yàlla bu baax di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi. baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq xam nga di wax ne su ma mbokku mbëri na ñëw vacciné wu comme ça ñu wéyal suñu làmb ndax amuñu lu dul làmb la res ñu bàyyi ak loxo yàlla xam nga santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax loo ma laajaat ma tontu la waxal. ci noonu nag nga waroon bëre mën naa naa sax di wax ma la fay bi sax waaye ci jour combat bi ñëwee leen combat am ba ko yëgee lan la la def. non métti na trop métti na trop parce que def nañ suñu ay daxaar suñu ay déem def suñu fukk suñu juróom xam a wax mënoon nañu ko teel a wax xam nga financement financièrement bi wàññeeku financé financé bi wàññeeku mais dañu bàyyi ba le jour bi xam ñu soog xam métti na trop mais tamit lu métti jaam lay dal te mënoon nañ jóg di bëri si xamuñu ndax dinañ egg si wala duñu egg si xamuñu ndax buñ ñëwee si làmb ji bon dañuy kaw wala dañuy am safaan lépp yàlla moo xam mais comme suñu borom defee na ko noonu dafa gën xëy na ñu bàyyi loxo yàlla incha allah loo ma laajal ma tontu la fu mu ne ni Covid bi moo tax ñu tëj làmb ñu ngi def campagne de vaccination ngir ñu mën a ubbiwaat làmb ci lan nga nekk instant bi ci lan nga nekk instant bi waaw instant bi maintien duñ bàyyeeku ah amuñ jot bàyyeeku parce que làmb ji mun nañ jekk ñu ne ñëw nañ ko lu ñu munti am mooy xam nga dañuy maintenir maintenir suñu forme amoon nañu état de forme bu baax xam nga waaw duñu duñu bàyyeeku daal amuñu jot bàyyeeku waaye dama lay coy uy ma sa adversaire Kalmu Ndour mu jàpp ne moo la mën moo la doole moo la dàq mystique yow nga koy wax yow waaw man dama ko ñaanal jàmm d'abord di ko baalu àq di ko ko ñaanal jàmm di ko ñaanal suma boobu man xaw ma moom peut-être am na xamoon na ni lamb jour lamb ji ne xam na ni may def mais man ñëwoon naa pour def si rek bon mais xaw ma lu ma yàlla doon defal wax dëgg yàlla. naka waa équipe Mor Fadam. waaw gars ñu ngi fi may siyaar Bébé Gouy xam nga ñoo ànd suma rak suma xarit di ñaanal équipe Mor Fadam jàmm di nuyu suñu di ñaanal suñu papa Baye di Seye yàlla suñu borom xaar ko àjjana di nuyu. staff yëpp yëpp yëpp di nuyu suma ay grand frère man sama combat dafa métti woon parce que man amul benn autorité bu ma jàppale bila wala taalaay man maa doon def ak suma ay grand frère xam nga sama staff kese ñun ñoo doon def ah waaye ñun dafa métti woon suñu côté mais santaat yàlla bu baax a baax a baax noonu la mu doon demee demee na ko may nuyu grand Jibi Faye Balla Faye Ablaye Ndiaye Mbaye Diop Mauritanie xam nga maay char ñëpp la res ñu bàyyi ñu bàyyi ci loxoy yàlla loo ma laajal ma noonu la supporters yi xam nga ñu wax leen ñu gën a waajaat gars yi mayoon nañ leen ay kaar xam nga man maa leen woo ne bu leen départ waa Diourbel yi waa Géejawaay aussi ñu ngi doon waaj bu baax a baax xam nga ma wax leen ñu waajaat bu baax a baax a baax la res ñu bàyyi loxo yàlla loo ma laaj ma tontu la sinon ñu arrêté ok ok Johnson bi instant bi dama xaw a xiif nag mais baa ma dem wut lu ma laal ba pare après xam nga ñu gën a mën a. kii ngi noonu ah, le promoteur de Sénégambia nuyu la. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di la ziar di ziar waa Leewtoo yëpp. waaw dama def dama def li ma war rek mu ngi nii preuve dama def li ma war li ma war mooy ma ñëw ñàkk comme sénégalais yëpp ni ñu koy defee ndax ñun dañ nekk ay jeunes yoo xam ne dañu war a wane exemplaire ci réew mi lu mel nii am ci réew mi di Covid même bu ñun sax ñu am suñuy famille am suñuy yaay am suñuy papa di dugg ci dëkk bi di dem di fréq kon. suñ ne lii moo ñu ci mën a génnee nañ ko def benn yoon te pare si ndax àdduna bi yëpp ñu ngi koy def ñu bañ a déglu ñi nga xam ne dañuy yàq xelu ñu ñu te doomu aadama bu nekk war nga am gëm-gëm ne lépp lu ñuy def doomu aadama mu koy lor def nañ ko doomu aadama mu mucc ci kon kenn ku nekk soo amee ngëm-ngëm boobu rek doo sonn te yaakaar naa ne suñu réew du ñu jël loo xam ne baaxul suñu ñu koy def suñu nañ def lu ñu war def suñu wareef ñàkku mën a continuer suñuy activité ndax kat ku toog ñaat deux ans trois ans li nga loon def yëpp mënatoo ko lu ko waral benn feebar muy Covid ñu gis ne lii mooy solution pour jëlee fi Covid kon na ko ñëpp def rek Covid bi mun fi jógee. ñu gis xalaat bu rafet initiative boo xam ne nii mun naa ne campagne de sensibilisation la fu mu nii jàpp ngeen ne suñu figuré ba pare lamb dina ubbi waat wala da ngeen dem waxtaanee jiwaat. non waxtaanee jiwaat moom waru si am c'est normal ndax nag bu ñu bàyyee suñu ite bàyyi suñu lépp ñëw volontaire ñu pikir ñu mbëri ñëw def ko amateur yi def ko promoteur yi def ko. nañu tijji làmb ñun làmb ñu am làmb lañu yaakaar bi Covid bi ñëwee waxuñ ne bu kenn amati salaire waxuñ ne ministre bu mu fayee ko di salaire waxuñ ne directeur bu mu fayee ko di waxuñ ne député bu mu fayee kenn ku ci nekk yaa ngi sa liggéey di am sa salaire ñun làmb lañu am. lu ñu amoon yëpp dañ ko jël def ko ci làmb ji man la 14 laa waroon a tëj la 14 suñu waxoon ne sax Covid bi da ngay joxe sa baaraam ñu dagg ko Covid bi jógee ko fi nga mën a continuer sa liggéey dama koy def ndax li ma amoon yëpp def naa ko ci ji miiras sama bopp toog di dem ba sa journée jege si ñu annulé affaire yi wax dëgg yàlla loolu ak dana ko métti kon na ñëpp ñëw volontaire ñu piqûre yaa ngi dégg covid bi jógee ko fi ñu mën a continuer suñu liggéey su njabootu làmb nag piqûre man sama gis-gis nañ ñu ubbil làmb ji képp koo xam ne amoo carnet bii doo dugg buñ ko defee yaakaar naa làmb am na lu bëri loo xam ne war na ko mën a def ci affaire vaccin yi incha allah kooku jamaykee la woon ah borom jam production dama koy bëggee